xam ni kenn du sàcc élection waaw lu ñu wax rek loolu mooy am waaw ñi jëkk a génn ñooy ñoo gañe ñoom dañuy rëccamtiku rek waaw dañuy rëccamtiku ndax xam nañ ni gañewuñu waaw wax moo leen desee lu rëy sax suñ ko arrêté wul dina indi coow bu rëy parce que ñi di ñuy nangu ñu jiitu leen waaw ñoom itam dañuy nangu dañuy xëccoo xam nga kon coow am na waaw muy ñaan daal yàlla sunu borom bi nga xam ne moo amee lépp ñu yàlla may ñu dal waaw te lépp sedd ci jàmm waaw mais li nga xam ni ku gagné moom ku gagné rek na félicité moromam te xam ne ñoo bokk réew bi salaamaaleykum Ousmane Diallo maa ngi dëkk Grand Yoff quoi waaw Grand Yoff laa dëkk mais fii laay fii laay nekk daal Liberté 6 waaw politique Sénégal moom wax dëgg yàlla dafa xaw a doy waar quoi ñii naan ñoo gañe ñii naan gañe ñu moom xam nga dafa xaw a doy waar te lu ñu jot a dégg ah man de xaw ma te jàngu ma nag sama jàngu soriwul lu ma jot a dégg c'est élection yi lu rajo yi doon wax gis naa ne yeewee gañe quoi sama xalaat lu Mimi Touré nag ñëw dégg def déclaration moo jaaxal population bi te moo lëj bët affaire bi quoi instant bi nii nii kon nag dañuy war a leeral quoi te bañ a sàcc quoi parce que instant ni war nañ dépassé ay kii moo sàcc kii sàccul ak yooyu yooyu dëgg la li affaire de majoritaire la rek dañ ñaan yàlla xam nga affaire yi tegu si yoon daal ñu nekk si jàmm moo gën quoi loolu lañ ñaan quoi non si mun naa ni problème parce que ñii suñu xëccee dañoo gañe ñii xëcc ñoo gañe rek Euh, euh, population bi ñoom ñoo koy kii quoi ñooy subir conséquences yi quoi parce que métit bi yëpp après si population bi lay wàcc quoi je préfère que waaw ah, ñoom politiciens yi motuñu sax 10 pour cent fii quoi kon dañu war a xool si population bi quoi nu ñu war a doxalee ba population bi du subir conséquences yi quoi man loolu laa gis quoi waaw. c'est bon. waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Baye Gueye Euh, responsable le mouvement Gëm sa bopp région de Dakar Guédiawaye département Guédiawaye waaw loolu ni ma ko jàngate mooy euh, defe naa ñoom dañoo répété waat ndax euh, stratégie la boo xamante ni li naan bataille psychologique la ndax boo xoolee deux mille dix neuf Boun Abdallah Dionne defoon na lu mel noonu ci jour élection yi bi demee ba vingt une gis nga ko mu génn def déclaration ni gañe nañ à cinquante huit pour voilà kon tey mën naa ni euh, seen directrice de campagne muy Mimi dafa répété waat la même chose euh, loolu nag euh, ça n'a rien à résultat yi définitif yi li mu war a joxe ndax démb boo xoolee tendance yi defe naa sénégal yi dofuñu voilà boo xoolee tendance yi ak zone yi nga xamante ni si yëpp gis ngeen résultat yi ni mu demee foog naa ni léegi élection moom kenn mënatu cee nax kenn kon donc ñoom bu nu taxawee ni gagné nañ 36 départements sur cinq départements vraiment loolu moom dafay doon loo xamante ni si du lu xel mën a nangu voilà comme nag euh, ba tey résultat yaa ngi wadd yeggaguñ ci maanaam <laughs> li naan njëkk a saaga yàkkamtee xeex la comme yeggagunu foofu rek mënagunoo xam exact résultat définitif yi après lu muy joxe mais yaakaaruma ni ñoom si seen bopp xam nañ ni perte nañ élection yi perte nañ élection yi il faut que nañu am benn esprit grandeur nangu ko nangu ni ñoom perte nan élection yi ndax sénégale yi tamit aussi dofuñu waaw loo ciy xalaat mi ngi ci mais loolu yëpp nag dafay dépendre ci ñoom ñoom parti au pouvoir ñoom ñoo war a xam ni pour réew mi nekk ci stabilité mi ngi ci seeni loxo ñu nangu mais quant que ñoom lii ñu bëgg a def nii gëm naa ni tey situation bu réew mi mën a yegg su boobaa ñoom ñoo ko fay yóbbu te gëm na ni tey ñoom li leen sénégalais yi wan ci élection yi pour xamal leen ni leen am nañ benn peuple bu déterminé peuple bu engagé boo xamante ni sii tey par rapport ak ñoom li ñu daj ci élection yi ndax euh, def nañ pexe bu nekk ay fakastal am na fi xam nga def nañ fi lu nekk ñii ñu kale leen ñii ñu jaxase seen liste loolu yëpp gars yi ànd ak cee ñoom ba pare wëlbatiku gañe leen largement ñu bëgg ni ñoom dañ koy poqati gëm naa ni nag su boobaa nag bu taal réew amee responsable numéro un mooy parti pouvoir oui moom Malam Mimi Touré est dans son rôle parce moom la président yónni woon ne ko demal nga taataaga nga daganal ma baatu askan bi ba mu demee elle a échoué parce que ki nga xamante ne nekkul candidat muy Ousmane Sonko gis nañ mbooloo mi mu traîné gis nañ ne il a fait une très belle campagne da koo les plans moo tax démb ba mu ñëwee elle était dans son rôle man dama koy comprendre mais tamit dañ leen interpeller parce que jàmm réew mi ci la lépp xaj jàmm ci la lépp xaj bu mu nekk fii nii di xëccoo bu fekkee waa Yewwi ñoo gañe nañ leen nangul seen ay seen victoire ñu jox leen ko loolu moo gën lii ñuy def nii naan dañoo gañe ay 30 département parce que dem nee na département tey bañ xëyee nee na Sédhiou gañee ko wàññeeku na Goudomp tamit ñu ngi koy wax kon ça veut dire moom chiffre yi mu joxe démb c'est faux donc balaa ñuy wax nañu xam lan la ñuy wax ba pare lan lañ teg si loxo sénégalais yi mën naa jur jéyee parce que tamit sénégalais duñu seen suffrage ñu koy nangu ñu ñu koy sàcc wala ñu koy détourné dañoo perte la dañoo perdre lamentablement dañ leen a dóor dóor yu métti parce que lu tax nag dañoo war a dem xoolaat def seen introspection xam ñoom na lan lañ def ba sénégalais suur lañ nii ñoom loolu la ñu war a def mais toog fii di xëccoo jaru ko bu fekkee nag am nañ ay département yu ñu gañee ñu jox leen ko parce que résultat yi li ñu mënti wax it ay tendance la rek résultat officiel yi génnagul nañu bàyyi autorité yi nga xamante ne ñoom ñoo war a génn auto résultat yi ñu def ko nag de manière très professionnelle ku gañe ñu xam ne yaa gañe jox la sa majorité nga daal di doxal ci loolu nag ñu interpellé président de la république bu mu toog les jusqu'au boutiste yii nii naan ko ñoo gañe ak ñoo am majorité ñoom bu fekkee amul majorité ñoom bàyyi position loolu la bëggoon bu baax ñaax ko gouvernement bi. daal yi définitivement résultat yi génneguñu ay petit résultat mooy parcelles yooyu noonu lañ nekkee di génne moom mënul warul génn taxaw on a gagné tel et tel alors que affaire yi génneguñu na xaar bu affaire yëpp a génn mu wax seen bilan waa tel ak tel département la ñu gagné loolu moo baax euh, par rapport tamit euh, conséquences yi non affaire moom instant nii waaw ok ay quelques problème mooy ay quelques discussions débats et tout ça là fii moom tout est fait quoi le peuple a déjà décidé nañ xaar résultat yi affaire yi génn nañ bàyyi na politiciens yi ñoom ñëpp ñu toog seen gàll naan seen ndox bu sedd xaar affaire yi génn fii amul benn débat amul benn problème nañ xaar résultat yi bu ñu génnee ñëpp a toog ñu feet affaire bi dem Sénégal dem ci kanam Macky Sall génn ci réew mi même fekkee génnul ci réew mi nañu aar réew mi dem toog Mermoz gàllem affaire bi cool comme ce que Sonko a dit rek loolu moo fi nekk quoi amul benn problème fii nii nañu abu nañu aar réew mi mu dem toog këram ñu liggéey lu ñu war a liggéey ci réew mi keneen tamit ñëw c'est ça fii kenn moomu ko ñun ñoo ko moom nous les Sénégalais et la jeunesse ok merci c'est pas dur ah c'est pas dur c'est l'état qui doit gérer tout ça lool moom gouvernement bi état bi moo ko war a gérer parce que les gendarmes sont les policier les militaires ils sont pour nous sécuriser c'est ça leur et aussi les jeunesse la jeunesse bon jeunesse bi war na xam lu mu war a mu war a dundee ci dëkk bi ñun fii ñoo ko moom waruñu yàq dara élection jot na gars yi dem nañ sànni seen carte loolu rek moo si gën a nañ dem sànni suñu carte affaire bi jeex sécurité bi na gendarme bi ak policiers yi militaires yi gérer lépp état bi bàyyi di def ay tappale waaw fii moom dara méttuwul sécurité moom méttuwul état bi moo war a jël responsabilité am rek wax policier lu ñu war a def ñu justice bi nu mu nu mu war mu war a doxee na dox noonu nañu bàyyi lépp ci seen loxo quoi ñoom seen liggéey la formation boobu la jël seen métier la ñoom ñoo jël décision def ko nañu leen baay ñu def ni ñu ko war a defee tey mun naa tamit Sénégal dem ci kanam waaw. en fait ne pensez-vous euh, si si absolument l'opposition aussi doit faire des efforts pour assurer la paix loolu moom dëgg la waaw bon y de des discours qui peuvent amener. des bagarres, des guerres et tout ça là, l'opposition doit éviter tout ça. Parce que le Sénégal c'est pour nous et c'est nous qui doit gérer peut-être d'ici 2035, 2000 quelque chose, le Sénégal sera comme Qatar, comme Dubaï. tout ça là c'est à calculer quoi. Ouais, tout ça là c'est à calculer. Bon, bon. Euh, en tout cas, tout est dans notre main quoi nous les nous nous les jeunes sénégalais lépp ci suñu loxo la nekk nañ joob ji bàyyi sàcc bàyyi lépp élection bi su su ñëwee ba bu am resultat yi gën nañ bàyyi lépp dem joobu ji bàyyi sàcc sécurité am fii nii waaw ku ne na respecté yoonam quoi affaire affaire méttiwul affaire méttiwul éducation bi gàlle na am paa yi nañu yar xale yi yóbbu leen école dem jàng ji artuwaan dem liggéey métier loolu moo tax kenn du fi sàcc kenn du rey kenn waaw loolu kese la affaire bi méttiwul waaw génne jeunesse yi tamit génn voté ji c'est nous qui devons choisir waaw ñun ñoo war a gérer rek ñun jeunesse si ñoo war a gérer dem voté ji fekke opposition nga faral nga gañe xam nga jekki rek mi yaa gañe à nangam nangam te dara sotteegul loolu mën naa andi lu nekk jéem nag ku ni am nga sañ-sañu tànn nanu bàyyi sénégalais yi fi nu tànn li jot a génn ku ne gis na ni mu demee ba yoon atte euh, li muy atte waaw man loolu laa gis man en tout cas daal nan xam ni réew mi dafa changement dafa am parce que am na élection présidentielle yoo fi jaaroon ñu génn seen ay chiffres joxe seen ay not à 3 heures du matin 4 heures du matin loolu nag changé na fi mu toll nii nan xam bu baax ni nit ñi. dañoo am beneen mentalité bu bokkul ak bi fi nekkoon régime bii fi nekk nan xam ni daa am ci ñu nu ko jëlee woon yàlla da ko jëlee woon ci ay nit jox leen ko ñoom it yàgg-yàgg dañ ko jëlee ci ñoom keneen jël ko nañ ci ànd ak gëm yàlla ak dal te bañ noo andil benn fitna wala benn wax parce que Sénégal ñun jàmm rek lan xam ñun ci suñu jëmi bopp nag gëm na ne li ñu jariñ ñoo koy liggéey xaaruñu dara ci ñoom waaye nag nan nu may jàmm rek te lii indi jàmm ñi daal mooy buñ leen gañee ñoom waa pouvoir nan nangu te xam ne dañ leen a gagné ndax sénégalais ñooy tànn waa opposition itam bu ñu leen gañee nan nangu te xam ne dañ leen a loolu rek mooy andi jàmm salaamaaleykum wa rahmatulah